dama gis bërki dama démbal li gis ci internet bi ma liir benn article bu ñu wax ba tudd ne liggéey bi dafa arrêté ba am nañu ñu dàq loolu nag ki ko mën a wax ku mu mën a doon waxut lu am te kuy waxal yàlla da ngay wax lu am ndax liggéey bi moom tàmbali ba léegi kenn mës sa gis liggéey bi arrêté benn yoon du ñun ñi ci nekk du waa Touba du keneen kon ku bind di wax ne liggéey bi dafa arrêté kooku sa bopp ngay waxal waaye yëfi Serigne Touba du arrêté yëfi Serigne Fall du arrêté nit nag bu jógee di liggéey lu baax kenn ku ne day jog jaar ci tànkam di ko téq di ko fas yéene daaneel waaye nag mbërum sëriñ Touba moom taxaw moom ku ko bëgg a daaneel yaay am so yaay am problème ci Abdoulaye mii day mbërum Serigne Touba la ndax kenn ku ne gis na li muy liggéey ci Touba màggal gu mag gi kenn ku ne gis na li muy liggéey di ko def ci dëkk bi waa dëkk bépp di ko ñaanal muy liggéeyee Cheikh Mamadou Fadal liggéey bu toll nii jël ko en charge boppam nangootul kenn def ci benn dërëm lépp mu jël ko def ko def ko kon mbërum Serigne tubaal la mbërum Cheikh Mamadou Fadal la loolu weesoo bër ci démb rek dégg naa ci Cheikh Bass Abdou Khadir mi nga xam ne mooy porte parole yoon wi ci màggalu sëñ Abdou Khadir gii mbooloo nekk fa di kii keroog ba nga xamee ne papaam ñëw na fo toog mu di ko sant di ko gërëm maa dégg ci làmmiñam mu ne jumaay Masaalikul Jinaan jée ñuy wajo war a wubbi day Abdoulaye def na ci nangami milliard kon loolu sañ naa ko wax parce que maa ko digg ca ba mu koy wax waxu ko ci néeg da wax ci mbooloo ñëpp dégg ko def na ko ci loo xam ne Sëriñ Tuubaa dana ko fay kon ku tudd Masaalik da ko tudd ku tudd Sëriñ Tuubaa da nga kon nag kookee ndawul sëñ Touba lu jóg fas yéene liggéey sëñ Touba Ecotra bëggu ci dara defu ci lenn li mu ci bëgg mooy mu ngi dimbali julli di mi ngi créé emploi nangami personne di fa liggéey ñoom ñëpp di jariñu muy liggéeyal sëriñ Touba ñëpp di jariñu ñun yor liggéey bi rek xam nañ la liggéey moom sant nañ ci yàlla sant yonent bi sant sëñ Fallou mi ko moom waaye sant Ablaye mi nga xam ne moo jël initiative bu boppam fas ko liggéey la sëñ Fallou waaw liggéey yi nag bi nga xam ne fi la toll euh, kenn ku ne daanaka mbir moom mooy wane boppam liggéey la boo xam ne nii travaux yi yéex na ci gis waaye avancé na ci gis ndax lu am qualité dafay yéex liggéey bi dafa nekkul liggéey boo xam ne dañ ko liggéey liggéeyu colof colof dañ ko liggéey liggéey boo xam ne bu mucc ayib ndax lépp lu ci nekk lu ne dafa tegu ci yoon fa mu war a jaar mu jaar fa ci wàllu architecte yi jàll ci wàllu euh, bureau de contrôle yi war ci lépp lu ñu validé ñu liggéey ko liggéey bu am solo ba képp koo xam ne gis nga liggéey bi xam nga ne liggéey bi liggéeyu qualité la ci liggéey bi boobu ba léegi mi ngi avancé mi ngi dox ñu bàyyi xel ne liggéey bi dafa nekkul liggéey boo xam ne ciment rek la ciment bi moom jeex na lépp lu ciy ciment ak loolu moom jeex na waaye nag dafa des loo xam ne nii moom ñëwagut ci liggéeyuñ ko ci réew mi dafa am ay commandes yoo xam ne nii dañ koo def yii ñu war koo jëlee Chine yi war ko jëlee Italie yi war a jëlee ba jóge ba Dubaï yooyu nag ñi ko war a def kenn ku nekk ñëw nga ba def sa ba xool ko ba xam la ngay liggéey ba jot say plan ba yaa nga ca di liggéey loolu nag kon mën nañoo wax ne kon liggéey bi avancé na. su gis qualité yi gros bi moom xam na ni norme yëpp respecté nañ ko ndax euh, fexe nañ ba barab bi amul amul poto ci biir ce cee diamètre octogone bi mi ngi nekk presque euh, huit euh, mi ngi nekk presque treize mètres cinquante te amul poto si biir kon kon loolu wàllu wàllu structure la boo xam ne saytu nañ ko ba ba lépp lu jëm ci wàllu sécurité. ci wàllu contrôle technique lépp euh, saytu nañ ko ba ba ba norme yu war am yëpp am nañ ko euh, euh, wàllu ñi ñi nga xam ne yoroon nañ gros œuvre bi ci sëñ sëñ Jibi Gueye ànd kook ñu groupe bi mu ko àndaloon respecté nañ normes yi doon leen contrôler ba liñ ko bëggoon amee nañ ko ne li léegi état boobu moom féete na wax dëgg yàlla sëñ bi sant na ci Ecotra mi nga xamante ne ànd nañ ko ak ñoom ñun doon ñu accompagner tamit sant nañ ci lépp jaar na yoon beneen étape bi ci topp mooy finition yi mu moom la ñuy wax second œuvre li ci jëkk di étanchéité bi ak décoration intérieure bi moom moom la ñu jublu ni ba tàmbali ko euh, ci biir loolu am nañ équipe euh, marocaine boo xam ni Ecotra daf ko engagé socialement pour mu ñëw liggéeyal ko barab bi ndax dañoo jubloo def qualité boo xam ne ak ak ak ak design spécial boo xam ne euh, fii rek ku ñëw rek fii rek nga koy gis ndax euh, dañ fi bëgg dëgg def lu am qualité loo xam ne tamit euh, dina dina dëppoog barab bi dina dëppoog borom barab bi loolu loolu si jublu moo tax ñu ñu jëlee benn équipe Maroc spécial boo xam ne mooy mooy mooy saytu loolu ñoom ñëw nañ ak seeni matériel ba ba ñu ngi tàmbali liggéey beneen étape bi mooy état bi moom tamit commande nañ lépp ba ba gannaaw suba bu soobee yàlla danañ ko tàmbalee teg euh, yeneen coordinateur yi si des mooy li nga xamante ne moo jëm ci wàllu marbre bi ndax si biir dañ koy marbré ak ci biti ak wàllu pâte de verre bi nga xam ne mooy nekk ci ci coupole bi ak euh, menuiserie bi li jëm ci wàllu euh, fenêtre yi ak ak porte yi li li nga xam ne moo jëm ci wàllu lampe yi luminaire yi loolu yëpp leen leen lu ci nekk dañoo xool société bi ci bi ci gën a xereñ ci ci ci àdduna bi ñu ñu ñu ñu commandé ko foofu. Alhamdulillah, aujourd'hui on est à Touba Inch'Allah. On y euh, vient ici pour visiter les deux musées, le musée de Sidi Mokhtar Mbaki, le musée de euh, Sérin Fallou Mbaki. Euh, on a, on, avec, euh, on, a, on a engagé avec euh, Ecotra, qu'on collaboré ici à, Dakar pour, pour, pour, pour voir le, le, de, de, Touba. le gros œuvre, il a, il presque il a fini. de ce matin prochain, Inch'Allah, on va commencer la décoration de faux, faux plafonds modernes. Euh, pour le, les demoiselles. Mais pour, le, la décoration, on, a déjà, on, a déjà, on a déjà choisi tous les, tous les, les, motifs, qu'on va travailler pour le pour les pour les façades, à l'intérieur, euh, euh, les poteaux, les chapiteaux. On a, on déjà, on a déjà voir toutes tout, tout, tout, le choses ici à Touba, Inch'Allah. Mais pour le, le boulot, on va commencer ici, Inch'Allah, dans la semaine, Inch'Allah. Pour l'éducation, Inch'Allah, on va, on va comme, quand tu vois, le musée de Sidi Mokhtar, Inch'Allah, ici, le musée de Sérin Mbaki. L'éducation qu'on va faire, c'est une décoration macoran spécialiste islamique. On a fait ça pour les mosquées et pour les musées, de, de Waliullah à l'intérieur pour euh, le, dôme central, Inch'Allah, on va faire une bonne décoration, première étape. Plus, on va faire les peinture décoration aussi, Inch'Allah, avec les, couleurs qu'on va choisir avec, la avec, le, situation de la de, Moselle, Inch'Allah. C'est ça.